African Channel ñu ngi am mbégte ak contentement dalal sunu oustaz euh, Serigne Mbacké Sylla tey ñu ngi ñëw fii ci këram wag waxtaan ak moom ci weeru koor bi ni jullit war a def ci weeru koor bi ak actualité bi ma bàyyi ko mu nuyoo. jërëjëf ah, jërëjëf soxna faatu ñoo ngi lay fay nuyoo di nuyu seen eh, mbokki internet yëpp. di am mbégte lool ci ñëw gi ngeen fi ñëw ngir ñu waxtaanee lenn ci actualité bi muy koor gi ak tolluwaayu eh, jamono ji. Oustaz Mbacké Sylla di ginnaaw bu ñu leen nuyoo ba pare ñu jàll ci li nga xam ne mooy laaj yi ñu indi tey ñu ngi bëggoon a xam lan mooy taxawaayu jullit bi ci weeru koor bi. jërëjëf taxawaayu jullit bi ci weeru koor bi moom lu bari la xam nga koor benn ponk la ci ponk yi lislaam yi doon bokk itam ci ponk yi nga xam ne ponk yu ama am solo la suñu boroom farataal ko ci yonent bi bi mu gàddaayee ba am ñaari at. nga xam ne jubluwaayu koor aaya ji jàngale koor moo ko wax mooy ngir ngeen am ragal yàlla yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min xablikum mu ne lan moo tax mu ne ngir ngeen am ragal yàlla laallakum tataxun kon li tax ñuy woor mooy ñu am ak ragal yàlla li tax ñuy woor mooy ñu jubóog suñu borom li tax ñuy woor mooy ñu jàng am jom xam nga koor jom lay jàngale te itam koor day jàngal nit ki yëg-yëg bi muy am ci ne boromam mi ngi ànd ak moom ndax fi mu nekk nii jamono ji nga wooree mën nga wéet yow dong sa kër am loo lekk mën ngaa wéet am loo naan kenn gisu la waaye doo lekk doo naan ndax danga ngay yëg ne suñ borom mi ngi ànd ak yow te moom gannaaw mi ngi ànd ak yow mi ngi lay gis moom nga gën a ragal ci bëti nit ñi moo tax bi nga wéetee doo lekk doo naan loolu nag li muy jàngee ci ñoon mooy bu ñu demee ba woore itam nit ki bu wéetee ak bu wétlikoo yëpp day yëg ne suñu borom subhaanahu wa taala mi ngi ànd ak moom yëg googu mu yëg ne yàlla mi ngi ànd ak moom loolu moo koy dimbali ba nga xamante ne du def dara loo xamante ne da koy yóbbu ci def naka sudut noonu moo tax boo xoolee ay yi nga xam ne mooy jàngale koor ci alxuraan bi suñ borom jeexalee jàngale koor rek lim ci teg mooy am wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili maanaam bu leen lekk seen alal yi maanaam bu leen naxante yàlla dafa pare rek daane bu leen naxante parce que ci koor gi dala doon jàngal nga am jom ba sa alali bopp ji nga moom mu lew la sax bëccëgu weeru koor doo ko lekk kon nag astamaak bu ñu woree nga am jom ba alal ji nga xamante ni nit ñoo ko moom nga war koo lu bàyyi ko fa kon koor daal bu ma mënoon tënk li nga xamante ne moom la fiy wut si li nga xam ne moom lay def si ci ñun du dak maanaam du dara lu dul euh, maanaam formé ñu ba nga xam ne bu ñuy jeexal koor gi diplôme bi ñu am mooy diplôme mu ragal yàlla diplôme mu taqwa maanaam coor benn université la benn centre formation la bu war a diire 30 jours boo xam ne bu ñu jugee ci biir dafa am lu ñu ciy jàngee fukki fan yu njëkk yi ñu ciy jàngee yërmande fukki fan yi ci digg bi ñu ciy jàngee suturaalante fukki fan yu mujj yi ñu ciy jàngee gore ci sawara buñ noppee nag diplôme bi nga xam ne moom la ñu am mooy ku ñu gis xam ne kii dafa doon woor kooram gi nekkul woon ne dafa bàyyi woon xiif bàyyi mar euh, bàyyi lekk bàyyi naan laa bëgg a wax ak bàyyi lépp loo xam ne day yàqu koor waaye dafa nekkoon ci moom formation boo xamante ne bu fi jógee day noonu dëgg dëgg jullit boo xam ne day yëg ne boromam mi ngi ànd ak moom ci lu feeñ boromam mi ngi ànd ak moom ci lu nëbb. ginnaaw bi ñu maanaam jullit bi nan la mën a taxawee taxawaayam ci weeru koor maanaam comportement am ci weeru koor nan la war a mën a demee. Mm-hmm. lu am solo nga laaj ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam man xaama la wax man xaama mooy ku taxawee maanaam képp koo xam ne dafa taxawee weeru koor la wax imaanan waxti saaban maanaam taxawee ko ci ak ngëm yàlla waaye taxawee ko ci góor góorgóorlu fàggu ay yëf yu baax taxawee ko ci ngëm yàlla mooy ginnaaw bi mu wooree mu wooral cëram yépp ci lépp loo xamante ne nii euh, maanaam lu jaaduwut la noonu lay woorale aw làmmiñam woorale ko ay loxoom woorale ko ay bëtam woorale ko ay tànkam ci biir koor it mu am lu mu ciy jànge loo xamante ne nii taxawaay bi mu ci am mooy dimbalee dimbalante ci jamono yépp lañ ko soxlaa waaye ci weeru koor daf cee raw rawatina context bi nga xam ne sax moom la ñuy woore ren dafa bokk ci contexte yi nga xamante ne moom la nit ñi gën a soxlaa li nga xamante ne mooy ndimbal ndax euh, taxawaay yu baree baree bari yoo xamante ne daf cee war a am kon taxawaay bi ci jullit bi war a am mooy ginnaaw bi mu ci defaroo ba noppi mu jàngee ci nag moom bi mu toogee ba cëg bi xiif xam ne tey jii damaa xiif te ko wargee ma jàpp am na koo xam ne douze mois yëpp daf koo xiif fukki weer ak ñaar yëpp boo demee bu añee tey bu subaa du añ bu reeree tey bu subaa reer lu ko ci lu ko ci traversé rek moom xëy na ci 30 jours la période weeru koor gi la waaye am na koo xam ne lool la mas di dundee loolu daa bokk ci taxawaay nga xamante ne jullit bi daf ko ciy am war ko cee jànge taxawaayu dundal ci jàng alquranul karim parce que weeru koor ci lañ wàccee alquran yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne jibril day ñëw weeru koor gu jot di nafaraat ak moom alquran kon weer wi weeru alxuraan la moo tax euh, université alxuraanul karim la boo xamante ne dañ ko cee war a nafar dañ ko cee war a jàng moo tax Sénégal ngay gis ñu ci doon organiser concours alxuraan yi concours bind alxuraan concours tari alxuraan euh, con maanaam conférence yi taxawal yooyu yëpp maanaam tafsir yi ci jàkka yi day delluwaat ci dundalaat alxuraan parce que weeru koor mooy weeru alxuraan moo tax ñi ciy dundale noonu alxuraan. bu ñu la déggee yaa ngi naan te pare fonk li nga xam ne mooy alxuraan tey ñu ngi gis benn euh, déclaration bu euh, oustaz xalifa Ahmed ñas def mooy mi ngi naan euh, comme par exemple nit ku bu wooree ba ngoon mën na dogo soxnaam nga baal ma ci kàddu yi. Mm-hmm. waaw wax la joo xam ne de wax dëgg yàlla ku ko dégg nit wax ko day fees dell ay noppam xam nga weeru koor dafa am lu ñu tere nit ki ci bëccëgu weeru koor yu bari yoo xamante ne bu dogee day dagan ci moom mu def ko ki woor dañoo tere ci moom bëccëgu weeru koor mu jotee ak soxnaam. léegi nag bu dogee ñu ne ko léegi sa soxna si dagan nan la maanaam guddi guddi weeru koor dagan na ci borom kër mu jote ak soxnaam bëccëgu weeru koor araamal nañ ci borom kër mu jote ak soxnaam guddi weeru koor daganal nañ ci nit ki mu lekk daganal nañ ci nit ki mu naan daja daganal nañ ci nit ki mu def lépp loo xamante ne dañ ko tere woon ci bëccëgu weeru koor waaye soxna si loolu dafa amul benn rapport ak nit ki na doge soxnaam wala nit ki bu mu doge soxnaam xam nga wax jooju ki koy wax dafa boole ay titre yu bari ci réew mi yoo xamante ne day tax ku bëgg a wax ak moom doo xam fan nga koy jaar li olof di wax naan gudd nga ba mënuma laa tëb gàtt nga ba mënuma laa burunglu loolu dafay am waaye nag man li ma gëm mooy su fekkente ne euh, euh, mbir dafa taxaw bañ dem ci wax ay ngëm-ngëm jëmm yi day dàqu moo tax ki may waxal man du doon a Ahmed ñas mi nga xamante ne doomi maam Khalifa ñas la waaye damay wax damay wax ci euh, koo xam ne dañ koo teg ci plateau mu wax ci benn mbir moo xamante ne jullit yépp dañ koo bokk kenn ku nekk sañ cee wax xalaatam waxam jooju mu wax ak wax yu baree bari yu mu wax tegu ko fenn wax yu baree bari yu wax yoo xamante ne tegu ko fenn maanaam ci bakkan ci bakkan la gën a jege ak ak ak lëndëmal ak indil nit ñi ay dut ci diine yiñ gëm ndax su fekkee mën ngaa toog janoog jigéen joo xamante ne dafa teg gerefaas nga bëgg koo wax ne ko gerefaas bi nga teg araamut parce que nekkul say karaw mooy feeñ waaye gerefaas bi moo muur sa karaw yi ñu ne déete waay nga ne léegi ku woor ba ngoon jot ba dog jot mën ngaa dem dégg ji sa soxna gis nga wax ji même bu fekkente ne ki maanaam ki woor ba dog jot may nañ ko mu jotee ak soxnaam toog ci ab plateau di ko waxee noonu moo nite wut maanaam loolu ku koy wax ku ne dañoo war a wax ne kii de waa xanaa kii dafa dof loolu mooy baat bi ñu war a njëkk a wax te te nag ku dof dañ laa war a ber maanaam ku naajit dañ laa war a ber xamante ne dangaa bewit bay dem itam dangaa war a moytu ngëm-ngëm yi nga xam ne moom la nit ñi gëm li réyoon ci ñoom bis bu yàlla sàkk nga ñëw ci ñoom tuutil leen ko oyofalal leen ko maanaam bu dee dañoo teg yonent bi alayhi salaatu wasalaam fu kawe boo yoree di wax nga woon ñu ne yonent bi eh, da doon def nangam ak nangam bëcc ak ak soxnaam bëccëgu weeru koor te loolu ki koy wax bëggul ku ko wax baayam nit ki koy wax bëggul ku ko wax sax doomam jim jur waxumaa xale bi gën a bi gën a jàll bi gën a jege même bu dee waxi dëgg la nit ki day bëgg ñu suturaal loolu ba duñ jëfandikoo baat yooyu léegi nag ki koy ki koy wax damay faral di wax ne lan la ci jublu loolu laa xamut gis nga Ahmed Niass li muy wax ci diine ji tariixa bu mu ci doon wax lu toll noonu ñu jóg ñooñu danañ jóg ne ko nangam ak nangam même su fekkee la muy wax dëgg la gis nga am na loo xamante ne dëgg la waaye du dëgg yépp ñoo bokk façon buñ koy waxee nit ki tey boo ko nee kan mooy sa papa du mer danaan la diw mooy sama papa waaye boo ko nee kan mooy sa jëkkër yaay wala kan moo maanaam daal di wax fi mu jaar ba doon papaam te pourtant li ngay wax dëgg la mais baat boobu lu ñu dul waxee moo tax kenn du waxee noonu dafa bari nag yu muy wax yoo xamante ne même bu nekkee dëgg la façon bi mu koy waxee façon boobu mooy vex nit ñi jubluwaayam nag laa xamut man lan mooy lan mooy mission wam loolu laa xamut mais li ma comprendre du mission wu jàngale parce que kon doo ñëw fekk ñiy jàngale ci penc mi nga def leen ay adversaire parce que moom bi mu ñëwee dugg ci dugg ci média di wax bu ñëwee ñi nga xamante ne dañuy sollu gàtt amut ci ñoom soxla ñi nga xamante ne dañu ñàkk julli amut ci ñoom soxla ñi nga xamante ne dañuy def naka sudd noonu ci lislaam amut ci ñoom soxla benn cible la am mooy ñiy góorgóorlu ci diine di nab nabi seeni njuumte lay xool seeni manqué manqué lay xool seenu ñàkk man lay xool kii lan moo ko tax a jóg loolu day nekk question boo xamante ne ñëpp war nañ koo laajte imam ñu dugg tuuti ci actualité bi ñu gis ni tey euh, mbas mi dugg na ci weeru koor bi ba am na yu bari yoo xam ne empêché na ko jullit bi muy fermeture jàkke yi nga xam ni moom la ñu def te dañ daan wax ñu ni jullit euh, bu amee loo xam ne neexu ko wala lu ko naqari dañ daan wax la plus nga toog nga julli nga ñaan suñu borom mu may la est gis ngeen ni fermeture euh, jumaa yi ak mbas bi ni mu baree ca dëkk bi gis ngeen ni nekkul endroit boo xam ne moo gën a placé wu pour ñaan suñu borom instant bi ñu tëj ko lan mooy kii bi taxawaay waaw bu dee problème boobu nag moom Cissé la boo xamante ne bu jaroon a wax la bu yàgg malheureusement niñ ko niñ ko niñ ko waxtaanee dafa xaw a jaxasoo ndax dañu ñoo li li maanaam li olofinaan naan dégg rek ne damm na loolu daf ñu cee dal xam nga ñun euh, tawat ji nga xam ne moom lañ jànkonteel ci àdduna bi tawat ji ni ay dégaam toll communication bi mu àndal daf koo ëpp maanaam dafa am benn communication bu mu àndal bu fort boo xamante ne defe naa moo gën a garaaw sax li feebar bi di def rawat suñu réew yi Afrique yi loolu mooy benn bi beneen bi ci def maanaam jàkka xëy na dama man damaa waxoon ca début bi ñu wax ne bu ñu waxee tëj jàkka yi day garaw waaye dañuy wax dañuy wax ne xëy na nit ñi lañu ñu tere ñu mën a dem ci jàkka yi du jàkka ji moo am problème waaye ñun ñi dem ci jàkka yi lañ jàpp ne ñun ñoo am problème ñun ñoo wërta daje parce que dañoo wax ne ndaje yi la ñuy tere ñi boole waale ci jàkka yi waaye problème bi ma ci am mooy dafa am dëkk yoo xam ne ñoom tawat ji dégg lañ ci am fi mu ne amaguñ benn cas ña nga ca sori ña nga ci nàngam na ñàngam ñoom ñëpp àndandoo ci tëjandoo jàkka yi ne léegi ñoom du ñu dem du ñu julli ji beneen bi ci def jamono ji ñu waxee ne dañu tëj jàkka yi xam nga ñun réew mi coow lee fi bari rek ñu bari naan nañ tijji jàkka yi nañ tijji jàkka yi waaye ñiy dem ci jàkka yi bariwut suñuy jàkka feesut suñuy jàkka du fees jàkka yi ciy fees àjjuma lay doon wala fi la weeru koor waaye jàkka yu baree baree baree baree bare bëri feesut la fay jullee xaj na ci ab car rapide te car rapide yaa ngi daw jàkka yu baree bare la fay dajee di julli xaj na ci ab tataa tataa yaa ngi daw am na sax mbooloo yu dugg ci biir Auchan di jënd xajuñ ci biir jàkka yi te pourtant léeg ñu dem de te taxaw ci buntu Auchan yi wala buntu boulangerie yi di rang di jënd mburu te ñooñu ñooñu fee suñu jàkka moo tax léeg-léeg dañuy toog ay mbir di ko di ko jéem a étudier ci ay ci ay bureau wala ñuy toog di ko waxtaane ci ay réunion te loolu réglé wu ko ñii dem ci jàkka yi xamante nañ te jàkka joo dem ci koñ koñ boo dem am na mairie am na am na autorité boo xamante ne nii moo yili foofa léegi lu tax mënuñoo mën a organiser wu ba nit ñi di julli ji ba nit ñi ba ñu bëgg dem ci jàkka ji man faa am accès julli ji ba noppi distance yi ñu wax ne nañ ko respecté ci marché bi bu ñu ñëwee distance yi ñu wax ne nañ ko respecté ci car bi yi ñu wax ne nañ ko respecté ci yëpp ñu man koo respecté ci biir jàkka ji léegi nag problème boobu man jàpp ma ne problème mu état la moo tax duma ma wax ne état moo ñëw ngir xeex lii wala ngir xeex lii damay jàpp ne responsabilité wu diine ji la diine ji ci boppam moo mel ne caaya ju amul ñoor ci réew mi maanaam kenn ku nekk jàpp ci ak gis nga ci ak wet di xëcc muy dem du sotti parce que bu fekkee am nga juróom fukki association islamique ci am réew am lu mat nangami association imam ci am réew kenn ku nekk jóg bu kii waxee lii kii wax lii kii wax lii kii wax lii doo xam ba xam kan mooy kan mooy waxal diine ji ak kan mooy waxal association ak kan mooy garde kàddoom moo tax loolu programme maanaam problème bu sérieux la li ma ciy tënk te di ko wax mooy jàkka yi moom des koo war a ubbi dañoo war a bàyyi nit ñi bëgg julli ji ñu dem julli ji ndax nit ñi bëgg a dem marché leen di bàyyi ñu dem marché ñun leen nañ ko organiser nit ñi bëgg dugg ci tataa bi liggéey ñi ngi leen wax dugg leen ci tata yi liggéey nañ ko organiser ñi bëgg a julli ji nag nañ leen wax ne leen dem leen geen julli ji ñu organiser ko jàkka ji am nay bilaal am na ndaw am na ñu yor sécurité jàkka ji am na lépp am ci jàkka yi ñooñu nañ taxaw ci buntu jàkka yi respecté sàppe yi nit ñi julli dem ñibbi man xalaat boobu laa ci am mm-hmm.